ajru lazi maa indahu laa yanfadu wasal la lii transféré nañ ko wa maa taraaw na fadu yàlla indil na ma lépp boole ci marque ñàkk jeex ga ñëw leen fii ma fay leen <laughs> ñi ñëw ci sëñ Tuubaa mi ngi leen di fay nan dëpp bàyyi wax lu dul dëkk nan bàyyi wax lu dul dëkk loolu la sëñ Tuubaa indi woon di ko jàngale bàyyi wax lu dul dëkk doomi sëñ Tuubaa yëpp moom lañ doon pratiquer seex yi sëñ Touba yëpp moom lañ doon pratiquer mbooleem kuy dox ci réseau réseau sëñ Touba moom ngay pratiquer koo seen mu nekk ci réseau sëriñ bi te pratiquer wu ko boo génnee kippaaram dégguñu di ko jëw xam nga ci dara <laughs> sëriñ dañoo war ay espion ñu leen di demal ci mbedd yi dem ci saal yi ñu leen di déglu war nañ ko def lu rëy li ñu yor war nañu sérieux bu toll ni am ñu leen di informer ñu bokkut ak ñi leen di wër di leen jaay. koo ci wax dëgg dégg nga li ma wax ña ko wër jaykat yi jaamu ko du xërëm yi kii dalaa yàpp fekk yow da nga ko bëggaloon ndam rek yaa ngi dégg li ma waaye duñ dem ci saal yi duñ déglu ñooñu waaye ndono lu toll ni ndonol Cheikh Mat Bamba ku ko yàlla may nga téye ko xam ne addina du la mayeeti lu ni toll addina mënu may ba may la ngay sëtu Sëñ Tuubaa te yow da nga ko juddwaale kon li nga àndaale àddina addina denc lu la lu ni toll kon àddina wërta denc loo am soxla yow déggoo li may wax bi ngay ñëw àddina li nga fi indaale àddina du la mayeeti lu ni toll àddina mas ngaa gis kenn ku mën a may ngay sëtu Sëñ Tuubaa bu ko àddina man a maye kon ñi koy rang kenn du xamul nu mu toll comme mënoo ko am benn sëriñ mënu la koo ñaanal lu ñu la defal la kon mën ngaa waat ne maa ngi nii di dund ci àddina waaye li ma fi indaale lu ni toll àddina du ma ko mayeeti boobu cër dinaa ko foyee man di ko jëndeeg àddina di maye man duma ko def moo tax ñii dox ci kaw dëggug sëñ Tuubaa googu yaa ngi dégg wax ñooñu ñoo sañc xol yi ñu doxul ci dëggug sëñ Tuubaa googu génn nañ ci xol yi bu yàgg nit nag bu fekkee ne ku dajeeg yow su jootal su lay daal dégg nga li doo gaaw a xam. leneen lu xalaat ci yow doo amul sens ndax tant que nit ñaa ngi lay defal loolu da ngay defe ne dara daluma waaye buñ la wanee ginnaaw loolu nga war a xam moo tax dëggu sëñ Tuubaa googu du ñaari dëgg du ñetti dëgg du ñeenti dëgg genn dëgg dong la mooy di wax dëgg di ko def